أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musul ginnaaw loolu mbokk jullit yi noo ngi ànd ak yéen téere borom bi tabaraka wa taala ba tey nu toll ci suratu yunus ci kàttanu borom bi tey dinañ jël ñaari aaya aaye 106 ak aaye aaye 107 ñaari aaye yoo xam ne ñu ngi ciy jëlee ñaari mbir bokk na ci li ñuy jëlee aaye yi ñuy jël jàng tey mooy du'a u xayrullah mahma kaana al mad'u shirkun muharramun fala yaxillu abadan ñaan kudul yàlla wala woo kudul yàlla wala jaamu kumul kudul yàlla ak ku mu mën a doon kooku ñuy woo wala kooku ñuy ñaan wala kooku ñuy jaamu ne shirkun bokkaale la ak ku mu mën a doon nag fii may wax ak yéen ku seen xel dem ngeen jàpp ne kooku la rek kooku laay waxal ñaan kudul yàlla walla woo kudul yàlla ci loo xam ne xam nga ne mënulaa wuyu ndax woote ñaar la man ngaa woo nit wuyu la kenn ci yéen tey ci biir jumaa ji su ma ko woowoon dafay wuyu walla du wuyu ah damay laajte su ma woon kenn fii ma jàkkaar lool ma jaar ci turam ne ko diw daf may wuyu walla du ma wuyu mais su ma doon woo papaam te papaam a ngi kër ga dafa may wuyu wala du ma wuyu damay laajte dama bëgg ngeen di tontu ah du ma wuyu waaw mu ngi dund de mi ngi kër ga toog lu tax wuyuwul parce que nekk fi dégguma waaw bu nag boo gën a doy waar kon ku dee bokkatul ku ku dee programme am jeex na ci kaw suuf intaqala min daari dunia ila daaril barzak doomu aadama day dund ñetti dund day dund àdduna mooy fii ñu nekk tey ñun àdduna la nekk ci bëccëg ak léegi am na ñu dem barzak foofu la ñuy xaarante ba ñëpp dee ñu dem yowmal qiyaam ñetti dund yi bokkuñu fii àddina mooy jiite barzak ruux mooy jiite yowmal qiyaam ñetti ñaari la ñuy lënkale kon naka la nit di nekkee àdduna bëgg a woo ku nekk àllaaxira wallahi pourtant ci jaamu yàlla rek lañ ko nangu mais kenn ci ñun toog fii doo woo nekk doo woo ku nekk alaxira pour mu defaral ma mu defaral la ndékki ah du ma wax papa sax kan moo fi am maam bu dee maam parce que kan mooy xëy fii di woo maamam bu dee boobu naan ko maam feew na nam ka ci taari doo ndékki kon ku nekk alaxira bokkatoo moo tax ñu ne du'a u xayrullah ñaan kudul yàlla mahma kaana al madu moo xam ki ñuy woo ak ku mu mën a doon shirkun muharramun bokkaale la waxuma yemu ci bokkaale waaye muharramun dafa xaram fala yahillu abadan ñu ne daganul ci sharia ñuy ñaan wala ñuy woo moo xam waajaa ngi fi moo xam nekku fi rawatina bu deewee mu ne wa in samuuhu tawassulan même buñ ne dañuy jokk ci diw diw jokk ci diw diw jokk ci diw diw jokk ci diw diw moomu jokk ci yonent bi yonent bi jokk ci yàlla loolu daa aram kan moo la wax nga jokk kan moo la woo ne la yow jaamu yàlla bi jokkal ci sàmba sàmba jokk ci demba demba jàpp ci moodu moodu jàpp ci yero yero jàpp ci ngañ ngañ jàpp ci paate ngeen def càlla la jëm fan dañ leen a defal direct ci yàlla loolu lañ la wax defal direct loolu nag téele sénégalais yi ba ñu dégg soo leen nee ja- dem leen ci yàlla ñu ne non ñun mënuñoo dem il faut ñu jaar fii kii mais pourquoi mënoo dem yow Sénégal boo nee man damaa bëgg a mel ni diw ñu ne yu xoolee da ngaa yabaati da ngaa yabaat yow yow diw kenn daa mën a mel ni moom pour tax lu tax diw kenn mënul mel ni moom lu tax te diw moomu ñuy wax kenn mënul mel ni moom moom dafa góor góorlu ba mel ni mel jéem a fekk yonent bi direct am na benn xissa bu ñuy nettali nee na alaaji Malick nee na yowmal xiyaam bu ñëpp dekkee déglu leen de yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk ci kaw kanam Aboubacar topp ko Umar topp ko Ousmane topp ko Ali topp ko mu ne man Malick ma topp ko mais loolu yitte la loolu loolu fit la loolu jom la loolu diine la mooy nga fexe ñooñu ni ñu def ba baax wala yàlla bi mu bëggee yonent bi baax sallallahu alayhi wa sallam bi yàlla bëggee mu baax yàlla daf ko limal yonent yi ñu nekk vingt cinq yonent ci alquran yàlla joxoñ leen ni ko gis nga ñële ma la woon ulaika allazina hadallah ñee laa jubal fa bi hudahum iqtadi ah aaya bu doy waar a ngi nii Cheikh Ouseymin nee na yàlla bi mu ne yonent bi gis nga ñee laa baaxal yemul foofu da ko ne fa bi hudahum waxu ko fa bi him da ko ne ñoom nañu fexe ba baax la leen baaxaloon fexeel loolu baaxal la waxul ko baaxal ci ñoom maanaam waxu ko topp leen dane ko toppal ñoom mbaax gi ñu toppoon fa bi hudaahum la ko wax iqtadi ñoom la taxoon ñu baax li taxoon Muusa baax li taxoon Ibrahima baax li taxoon Nuux baax yonent yooyu ma la wan li taxoon ñu baax toppal loolu pour nga baax bi yàlla joxoñee yonent bi yonent yi ne ko toppal ñii pour nga baax ñun yàlla def ñoo joxoñ yonent bi ne ñu ñun bi ñu yàlla joxe ñu yonent bi lu mu ñu wax wa in tuti uhu tahtadu allahu akbar su ngeen ko toppee rek daal di jub jeex na xalaas yàlla waxul su ngeen ko toppee après mu paas leen Babacar Babacar paas leen Omar Omar paas leen Ousmane Ousmane moom ah après paas leen Ali Ali paas leen Bilal Bilal paas leen Ousseynou Ousseynou paas leen Hamza Hamza paas leen ñuy paasante jëm fan mel ne match de football da nga daan bërëb dem ci yàlla direct jarul interprète jarul wii jégal direct yow jullit nga dem ci yàlla ñun ñi toog fi yëpp ku yeggul ci yàlla yow la ku yeggul ci yàlla maanaam ku yaafuus ci yoon wi ba ñu raw la yow la du kenn dañoo tëj bunt bi ne kenn du fi jaar wala ñële lan lañ defoon ba ñoom am li ñu am loolu dañ ko fee jële du julli la woon koor la woon def yu baax yi naafila guddi woor jàng alquran jéem a jël seeni cër laggal ko ci jaamu yàlla loolu dafay jóge waaw pourquoi kon lu tax ñu nangu ñun ñoo ñu raw ñu te pourtant ci diine rek lañ ko nangu même buñ tegoon léegi ginaar yàlla nag bu muy benn nag te saal bi yëpp jaamu jumaa ji yëpp nag fees del ñu teg benn ginaar ñu ne gars yi raxasu leen te barkeelu da nga ci gis Ousmane Faye moom benn pooj lay jël taxaw ne daaw da coor jël beneen pooj bi ah gis nga kenn du nangu ku la ci ëppale lu tax ah waaw léegi bu dee jaamu yàlla nag sëriñ bi tëdd yow ngay nelaw sëriñ bi di jaamu yàlla ba pare nga bëgg ne incha allah fas aale ma de yaa ngi nelaw moom mi ngi jaamu yàlla allahu akbar xoola saxaaba yi saxaaba yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla ne yaa ayyuhal muzammil qum est-ce que dafa bàyyi saxaaba yi tëdd ca fin wu aaya ca suratu muzammil fin wu aaya lan la yàlla wax ah cam xaafis yaa ngoog de ca fin aaya yaa ngi dégg yàlla naan yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na benn mbooloo ci jullit yi dañuy taxaw guddi ànd ak yow di julli yaa ngi sa kër de mais ñoom tamit ñoo ngi seen biir néeg di julli suñu jullee ba pare dañuy jàng alquran kon mbir mi du yonent bi kese saxaaba yi dañoo xool yonent bi li muy def ñu jéem a def loolu ñun nag fii ku nekk rek day tëdd fasaale fasaale lii loolu te bu lekk gi jotee doo ne fasaale bu ñuy séddale xaalis bi doo ne fasaale wala da ngay jóg taxaw ñu ne diw nga ne présent ñu jox la nga ne maas ñaata lañ la jox yow mbaa ëppul mbaa manqué wul waaw nga contrôlé ko léegi jaamu yàlla bi nag kon nañu bàyyi xel bu baax ne mbir mi kenn tëju ko ba pare mbir mi encore kenn jagleelu ko ay da ngay dégg ñu ne jagleel la ci biir jagleel jag maa jagleel nag da ngay dégg ñu ne waa ji am na cinquante jabar ñu ne ah ñu ne moom lañ ko jagleel nag fan lañ ko wax ça loolu mooy suñu problème ñun Sénégal waaw da ngay dégg waa ji rek gars yi dañuy wax rek soo ne fu ñu ko bind ñu ne Baye Mbaye Baye Mbaye fekke na ko Baye Mbaye ak Baye Ngañ ak Baye Demba ak Baye Samba waaw biñ ko koy wax Baye Ngañ fekke na ko bi Jibril ñëwee Baye moo doon fa woon toog eh Sénégal ñëw yëpp Jibril waaw keroog bi gars yi di julli man dama ko laaj ne ko waa yow doo julli ñu lu tax doo julli mu ne lu tax ñuy julli mu ne ah man de damaa jaaxle dinañ ne yàlla mu ne dañuy julli pour dugg àjjana mu ne waaw mu ne ko lii lan la mu ne ko lii de caabi la mu ubbi mu ne ko lii la mu ne ko àjjana mu ne ko du lii la moo ngi nii man damaa yor caabi ji waaw waaw xoolal léegi loolu bu ñu ko waxee ñoo xam ne amuñu xel amuñu xel ñu ne leen ñoom ñoo yor caabi àjjana ñi dul julli ñoo yor caabi àjjana te yàlla ne ku dul julli du dugg àjjana ban mooy dëgg wala alxuraan yàlla wax fi loolu ah maa salakakum fi saqar fa xalafa min baadihim xalfun adau salaa wa tabaw fa sawfa yalqawna xëyyan xam ngeen ñu dul julli fan la leen yàlla yóbbu ci benn kondiir benn mbalka boo xam ne bu ñu lakkee waa safara ba deret yeeg dëtt yi génn seen yaram yi fi ñu koy dajale foofu la yàlla di leen réclamer dajale leen foofu ñoom ñu dul woon julli fa sawfa yalqawna xëyyan la yàlla wax foofu laa leen di naan loo illa man taaba gis nga lu dul ku tuub delluwaat di julli xanaa am ne julli moo gën a màgg ci jaamu yàlla yi assalaatu imaadu diin man aqaamaha faqad aqaama diin wa man tarakaha faqad hadama diin ñu ne ñu ne ñu ne waa ñu ne caabi jaa ngi nii caabi ji da maa ko yor ndeysaan maa yor caabi loo yor ban caabi caabi aljanna caabi aljanna ñu ne Séné ñëw na Sénégal caabi aljanna ñëw na Sénégal Sénégal moom lépp ñëw na fi am ngeen ndoxum zam-zam am ngeen kaaba am ngeen arafat am ngeen jibril am ngeen aljanna am ngeen yatu Moussa moo ngi fii ci Gunaas ah waaw yatu Moussa moo ngi Gunaas am ngeen lan lu ne waaw am ngeen asaabul kahfi lu ne Sénégal am nañ ko ah am nañ xajaral aswad am nañu mahdi moom kay loo xalaat rek am nañ ko ñun am nañ ko loo xalaat rek lépp loo yàlla doon wax rek ñun am nañ ko moo ngi nii toog te nag yooyu yëpp ñu am nag ma anzalallahu biha min sultaan doo wax kenn luy dalil alquran ba mu leer déedéet da ngaa ne Baye Mbaye Baye Moodu Baye Demba waaw bi Jibril di ñëw Baye Mbaye fekke na ko bi Baye Moodu biñ ko yàlla di yónni ngañ fekkee na ko Demba fekkee na ko fii la woon ci pàkk bee diwa ngi ne woon toog fekkee na ko loolu day diine nañ bàyyi caaxaan dama ne nañ leen bàyyi caaxaan nañ leen dem jaamu ji yàlla loolu mooy dëgg ku jaamul yàlla perte nga gis nga caaxaan yi ci mbedd mi ku ko déglu ba ñu nax la ba nga dee ñu jëlee la ci mo sa kër dugal la ci morgue bi ah ñëw préparé la sang la sang la jullee la yóbbu ba ci ba am bàmmeeli ñu gas ba mu xóot ñu suul la rek yow mbir mi leer nga màtt sa baaraam yow ma yauddu zalimu nga commencé màtt say loxo lan la waa ji di wax yaa waylata laytani lam attaxis fulaanan xalila way yàlla su ma xamoon ma bañ a jàpp ci diw wala diw la yàlla wax diw diw boobu nag xam ngeen lu tax yàlla adressé wu ko benn nom ah tout le monde s'appelle diw diw ñun ñëpp diw lañ tudd ñun ñëpp diw so- soo ma bëggee adressé benn da nga naan diw diw mi tafsir ca jàkka ja diw ñëpp xam ne man la wala jeex na moo tax yàlla ne fulaan xalila aka neexoon jàppuma diw mu nekk sama xarit ibadallah mbokk yi kon tey bokk na ci li ñuy jàng mooy du'a u xayrullah ñaan kudul yàlla wala woo kudul yàlla mu ngi dund dafa dee ki ñuy woo wala ñu koy ñaan loolu bokkaale la muharramun fala yaxillu abadan bokkaale la mais dafa haram ak nag nuñ ko mën a tuddee soo ne waa ji yow da ngay bokkaale mu ne la non man soo gisee ma jàpp ci kii kii moom la mu def ku la wax lu mu def ku la xam ne lu mu def yow yow ñun ñi ñuy tagg fii di yuuxu naan ñoo def lii def lii yaa nii kan moo leen ne loolu yàlla nangu na ko kan moo leen ne ñooñu ñu ngi aljanna xanaa déggu leen yonente bi ne rubba qabrin yukaf wa saahibul qabru fi naar bëri na bàmmeel bu ñuy wër di ko ziyaare yonent bi nee na borom bàmmeel bi mu ngi safara nit ñi ñoo xamul ñun ñoo fi rek ñun ñoo rafet njort fii de naan waaw diw kay soo ne woon sëñ nangam rek jaay na kooku mu ngi àjjana yow mi ne mu ngi àjjana la yow yan preuve nga am ne kii mu ngi àjjana foo ko jànge fan nga ko jànge ban buntu lañ la ubbil yow yàlla dafa ñëw ci yow ne la dugal naa saa loolu mooy suñu problème da ngay am rafet njort rek ku baax ku dee ku ne ñu am ci moom njort ne kooku day dina dugg àjjana du dëgg de ah voilà xoola yonente loolu dana sax anta min min ahlil janna aboubacar mu ne ko la bàyyi ko mu ne ko anta min ahlil janna yow de yaakaar naa ne di nga bokk ci waa àjjana allahu akbar aboubacar ne ah mu ne waaw mu ne ko sama tànk ndeyjoor bi bu duggee càmmoñ bi duggagul wóolooguma xanaa ma dugg yàlla waxoon na Moussa yaa Moussa laa taaman makri hatta tara nafsaka fil janna Moussa bul wóolu sa bopp de lu dul nga gis sa bopp ci biir aljana nga geestu gis sa bopp yaa nga aljana nga doog a wóolu nag nga yëkkati sa loxo nag di zibile nag naan yaa layta xawmi yaalamuuna bima gafara li rabbi wa jaalani min almukramin ñaareel bi ñuy jàng mooy laa yuminu abdun xataa yuqina anna ma araadahu allahu lahu min xayrin aw sarrin laa yastatiu ahadun dafahu wala taxwiluhu bi xaalin min al axwaal lii mooy yaqiin lii mooy kóolute lii mooy lu leer kenn ci yéen ngëm yàllaam du mën a mat laa yumin la yonent bi wax kenn ci yéen ngëm yàllaam du mën a mat jaam bi ba mu am kóolute mu am yaqiin bu leer ne li yàlla bëgg ci moom lu baax la wala lu bon kenn mënu koo défendre kenn mënu koo changer ak lu mun a xew li yàlla wax ci yow fii moom mooy am kenn mënu ko dindi kenn kenn abadan su yàlla ne yow lii la da ngay dee ci accident da ngay dee ci accident kenn mënu ko dindi yonent bi alayhi salaatu salaam toogoon na ba ci àgg mu ne nit safaraa ngi ñëw lii waa ju doy waar ñëw rafet baax kay de subhanallah est-ce que am ci ñoom ñuy commencé sikki sàkk kii nu mel yonent dinaal safara yonent bi ne pat moom yoonam nekku ci mu toogaat ba suba même heure mu ne nitu safara mu ngi ñëw même waa ji mu ñëwaat même heure léegi nag xam nga lan mooy problème bi naka la yonent bi di waxee kii safara la jëm te ñun ñu ngi koy gis ci jàkka ji guddeeg bëccëg moo ngi ànd ak ñun suñuy jihaat moo ngi ànd ak ñun bu ñuy julli moo ngi ànd ak ñun bu ñuy woor moo ngi ànd ak ñun te yonent bi wax ne kii safara la jëm ñu dem xare ñu jam ko jam-jam bi metti mu jël jaasi bi mu yoroon rey boppam li yonent bi waxoon ñëw na wala ñëwul kon ñun lépp lu yàlla dogal ci ñun mooy lii am kenn mënu ko dindi qul lan yusibana illaa maa kataba allahu jeex na dara du nu dal lu dul lu yàlla wax moo nuy dal loolu gis nga loolu boo ko gëmee rek pare nga noppalu nga doo fi toog naan su ma xamoon su ma demoon fee bu ma sangoo woon lii bu ma takkoon deru bukki bi bu ma laaloon lee bu ma bu ma bu ma da ngay gis ku ku xëy suba ku xëy suba Sénégal boo xëyee suba da ngay gis benn maire buy dem ba caag rek mu taxaw mu seen benn xale bu góor buy ñëw fay mu taxaw xam ngeen lu tax mu taxaw nee na du dajeeg góor fajar du ma dajeeg góor fajar nga gis paa buy dem ba caag taxaw papa lan la mu ne ku jigéen kii di ñëw man du ma dajeeg jigéen fajar ñooñu dañ leen bàyyi seen kër yi ku jigéen ki kan la bàyyi ci kaw la ah kan la fanaanoon paa bi kan la fanaanoon léegi nga ne doo doo dajeeg moom loolu est-ce que xel la lan moo tax parce que bidaa parce que aada boo dajee boo dajee góor booy jaay boo dajee góor du jar bu dee góor nga boo dajee jigéen du jar mu jaral la nga bañ a xëy soo gëmoon sa pas-pas bu wér ne yow li yàlla bind ci sa jëbi tey jii moom ngay am jeex na su yàlla nee doo am doo am bi yeneen bi di jàngal ibnu mas'ud wala ibnu abbas xadis ba da ko ne waalam anna al umma law ijtamaat ala cheyin xamal xeet bi yëpp buñ dajale woon ci benn mbir bëgg laa dimbali ci mbir moo xam ne yàlla nee na du nekk du nekk xamal xeet bi yëpp bu ñu àndoon bëgg laa xañ lu la yàlla jox kenn mun la koo tere am ba pare pour nga am kóolute sallallahu alayhi wa sallam mu ne mu ne mu ne sahaaba bi jaffati suxuf wa rufi al qalam feuille bi ko yàlla doon bind fendi na big bi yàlla doon bind yëkkati na ko ba pare jeex na yàlla dootul bindaat ku yàlla bindoon ci azal ne yow da ngay texe da ngay texe ku yàlla bindoon ne da ngay texe da ngay texe di jeex na terminé kon nag li fi nekk mooy kenn ku nekk dëgëral pas-pasam am kóolute ci boroomam am kóolute ci lan xataa yuqina ba jaam bi gëm wóolu anna ma araada allahu lahu min xayrin li la yàlla bëggal ci lu baax kenn mun koo téye bu àdduna bi yëpp àndoon bëgg laa xañ lu baax la li nga war a am da nga koy am wala doo ko am su àdduna bi yëpp mu ne ko min charrin encore su àdduna bi yëpp àndoon ne dañ lay lor wala yàlla bëgg laa lor kenn mënu ko téye maa yaftahu llahu linnaasi min rahma fala mumsika la wa maa yumsik fala mursila la su yàlla ubbee yërmandeem ne asamaan demal kenn mënu koo téye su yàlla téye kenn mënu koo indi li mooy pas-pas bu leer soo amee xamal yàlla la soo ñàkkee xamal ne soo wéree xamal ne soo feebaree xamal ne lu la dal xamal ci yàlla la bàyyi ko yow defal li nga war a def nga bàyyi sa bopp ak borom waaye bu fekkee li ma dal sama ndomb bi ma fàtte la man kay xamoon naa ne bi ma demee takkuma ko xam ba li ma dal xamoon naa ne diw bi ma dajeeg moom xamoon naa ne bi ma lekkee li ma jox xamoon naa ne bi ma xoolee xamoon naa ne xamoon naa ne xamoon naa ne ba kañ jullit pas-pasam dafay wér ci yàlla da ngay am ci yàlla kóoluti léegi nag fii la sunu problème nekk mooy wóolu yàlla ñun gëm nañu yàlla de am nañ imaan mais wóoluwuñ ko benn borom xam-xam nee na da ngeen di dugg ci avion am na booyin yoo xamante ne booyin yoo xamante ne comme li julli si vendredi lu toll noonu la booyin bi di yóbbu dégg ngeen de vendredi ah li julli si lu toll noonu la booyin bi di jël ñooñu ñëpp à peu près bu ñu doon à peu près fii ñii julli vendredi ñaata la ñaata lu ñuy wax 300 personnes ok 300 personnes yëpp ci biir booyin bi benn nit lañ jox seen bakkan benn nit mooy kan ah non du pilote bi de commandant de bord bi moom lañ jox lépp parce que commandant pilote yi commandant bi la ñuy déglu xoolal ñoom ñëpp kenn lañ wóolu waaw boo waxee attention nous sommes au place que ceinture gars yi commence bu dee oxygène gars yi commence bu ne fay leen portable gars yi fay ñëpp kenn la ñuy déglu kooku la ñu wóolu ah ñun ñëpp nag ñu nekk ci benn avion wu àdduna avion wu àdduna ñaata nit ñoo ci nekk ah ñaata milliards sept milliards yàlla yor 7 milliards yooyu wóoluwuñ ko dégg loolu lu mu wax de 300 personnes yooyu ñoom dañoo wóolu commandant de bord bi ah ah un milliard bi ci avion wu yàlla bi un milliard 7 milliards yooyu yàlla yor leen de ku nekk daal di wóorul de yo ana Samba woy yaa Samba ñoo ngi waaj a dee ñëwal fa iza rakibu fil fulka daawu llah muxlisina fa lamma najjaahum ila al barri allahu akbar sun borom nee na fa iza hum yushrikun bu ñu nekkee ci avion bi affaire bi rëngi rëngi rëtëtëtët ku nekk nga gis toog ci ruq naan yaa allah yaa rabbi yaa yaa yaa yaa yàlla nee na ba ma téye avion bi wàcce ko ba ci suuf mu daal di wàcc ñu ubbi bunt yi ñoom ñëpp ñu rëcc nga gis ko ku ne sër tët tët tët mais le commandant là il est très fort laa la wax nga dégg kële moom ne siu bu doon du sëñ diw ñun ñëpp dañuy dee moom moo téye woon avion bi ci kaw ci kaw ab semence bi ma ko woowee rek dama ko gis mu taxaw téye avion bi am na ñoo xam ne ñoom loolu la ñuy wax am na benn waaye bu dëkkoon ak ñoom mbay benn sëriñ bu dëkkoon ak ñoom mbay mii moom waa ji bi mu ko ne sëñ bi oto bi dafa kii rek ma woo la rek ma gis la nga téye oto bi mu ne ko yàlla def moom sëñ bi mu téye woon oto bee mu téye woon oto taalibe bi ah moom mu tukki muy ñëwaat fii ci bies doora bi la tànk bi daggee ndeysaan dañu bies doora oto bi day gaare ndeysaan muy wàcc beneen oto ñu fekk mu wàcc benn tànk bi rek beneen oto ñëw rek mbëkk porte bi tànk bi képp ñu dagg tànk bi waaye léegi lu tax téyewu noonu oto boobu moom gis nga yàlla lu muy wane mbokk yi ngeen ñëw ndax ñeneen ñi mën a dugg insha allah ngeen jege si ñëw leen ñëw leen ñëw leen su ko defee ñaar yi la ñuy jël tey ci sunu njàng mu ne ak lu mën a xew rek ci hadis ba wa maana hadis ma asaabaka lam yakun li yuxti ak wa ma axtaaka lam yakun li yusibak gis nga ma asaabaka li dal sa kaw li dal sa kaw munoo woon fexe ba du dal sa kaw munoo fexe amoo rëccukaay parce que yàlla moo ko programmé ci yow nen ne dafa war a ñëw li dalul sa kaw nga xam ne daf laa mas danga koo mbas mu mooy kenn mënul woon fexe ba mu dal la ak nag bu ñëpp àndoon kenn mënu ci dara kon jeex na li nga am xamal ne lii laa waroon am li ma ñàkk xamal ne waruma ko woon am jeex na nga noppalu mais suñu problème mooy non affaire bi aw ma ko non fal force dama koy am ñu ne la nooy def demal ci guy yu ñuul ya bu la paa jogoy juuf wala jogoy seen sange terminé sànq ndeysaan tey dama tey dama dama dama dama dama xaw a yéemu tuuti xam naa ne su ma waxee lii sax kii dina déglu dars bi dina xam ne moom laay wax naa ñu ngi koy enregistré da xam naa ne dañ koy envoyé waat waaye ala kulli xaal ma wax ko rek ndax mu mu ndax moom mu mu jàng ci benn booy daf maa woo mu ne ma sama benn maire daal dafa ne naa ko booleeg sama maam séeréer te damay ragal su ma ko booleeg ñooñu dafay bokkaale ci te ñooñu loolu la ñuy def ma bëgg ma jox la ma jox ko sa numéro mu woo la nga woo ko waxtaan ak moom orienté ko ma ne ko alhamdulilah ma jekki ay minutes mu woo ma fi ma yëgee ne daa am mbetteel parce que moom dafa yaakaar ne maa ngi ci village yi ci ruq ruq ruq ruqaat séeréer yi ma ne ko maa ngi stade Amadou Bari mu ne ah ma xam ne découragé na quoi su ma ko ne woon maa ngi fim la wala maa ngi sibo soor mu ne kon day neen alhamdulilah ah wala maa ngi njongoloor kon day neen fii terminé waaye ndeysaan ma ne ko maa ngi stade Amadou Bari rek ma ma yëg mu ne ma fan fan nga fa nga ne sa ma yëg ne découragé na quoi ndeysaan loolu mooy sunu problème wala ñu jël sunu mbir jox yàlla la ilaha illallah duñ ko def dañuy jël sunu mbir jox nit vendredi bële passé ci kaw yaakaar naa nettali woon naa leen xissa xale bu jigéen ba bi mu jëlee problème am chaque jour di ko wax yaayam di ko wax yaayam di ko wax yaayam di ko wax yaayam di ko wax yaayam ba yaay ji di waaj a dee yaay ji ne ko sa problème bi léegi wax ko yàlla un mois la ko wax yàlla yàlla réglé ko tey tey loolu laa doon dégluwaat benn cheikh buy xutba mu ne benn chauffeur taxi la dajeel chauffeur taxi bi ne ko sëriñ bi man daal vraiment dama dund gi bëggatuma ci dara pourquoi mu ne ko aw ma doom te nangami at sëy naa aw ma doom mu ne ko loolu rek mooy sa problème mu ne waaw mu ne am ana sa portable mu ne aw ma portable mu ne waaw man portable nag ngay jokkoog waa asamaan ni ngay jokkoog nit ñi léegi mu réglé wu waa ji ne ko lan mu ne ko boo amoon portable xam nga ñun ñëpp dañuy jokkoo su ma bëggee jokkoo kenn ci lu may def damay ko woo ci numéro est ce que yow woo nga numéro yàlla sa problème bii ngay wax nii est ce que woo nga yàlla lan mooy numéro téléphone yàlla yaa rab yaa rab yaa rab mu ne la labbayka yaa abdi wa ida saalaka ibadi anni fa inni ujibu daawata daay isa bi sart isa daani ma yàlla nee na soo ma woowee ma wuy la boo woowul yàlla rek ngay woo ndombo yeeg di woo sa morom wala ngay woo pettaaw yi wala ngay woo xaaw yi yàlla du la wuyu waaye boo ko woowee mu wuy la yàlla moo ne ku ma woo ma wuy la am man yujibul mutadar isa daa wa yaksifu suu yàlla nee na ku am problème soo ma woowee ma wuyu la léegi nag yow nga am problème wala nga woo yàlla nga dem ci benn waaye naan ko waaw man ngay ndomb ndomb bi musalaate laa bëgg waaw ndomb ndomb dañ dëpp gi dañ dëpp gi waaw wala nga ne lappetaake ah min faalaami ko lappetaake saa waɗi ko fotɗa lappeede a lappeete ha ha sa waɗi ko fota lappede a lappete ha keeci ki bona ɗum kay sa yiɗi fama ɗum koɗo mi lappetake e ko haɓɓumi ko mi lappetake waji goto o wino mi haɓɓi lappetake waji o wima kono a haɓɓani dasetake o jaggue koyngal ngal o daasimo kon inchallah mbokk julli di ñaari aayo yi la ñuy jël ma bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu aayo yi inchallah wala tad'u min dunillahi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدع من دون الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم barakallahu fiik jazakumullah xeyran yal na yàlla fayal ñu la yiw sunu borom ne wala tad'u bul woo bul ñaan bul jaamu wala taddu ngalla waay lii leer na de wala wala taddu bul woo kan la yàlla di waxal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kan la yàlla di waxal jullit bi kan la yàlla di waxal ñun wala taddu bul woo bul ñaan bul yaakaar bul wóolu min dunillahi keneen ku dul yàlla gis nga yàlla rek wóol yàlla waa ji moom kan lay woo day ñëw sax ne la ñaanal ma waxu la may ma de la la la wax ñaanal ma kan la bëgg nga ñaanal ko waaw léegi lu tax yow moom ni muy def bay ñaan yàlla di ko may lu tax yow mënoo dem ñaan yàlla parce que dañ ñoo nax pourquoi ñu nangu ñii ñooy ñaan ñu leen di may ñun ñi duñ buñ ñaanee duñ ñu may ba ñu dem naan ñaanal leen ñu mais fii mooy problème bi waa ji lan la def ba moom ba bu ñaanee ñu may ko yow lu tax gëmoo ne boo ñaanee ñu may la lu tax waa ji daal moo baax moo sell moo set moo tax yow da ngay jël oto dem ay dëkki dëkki yor malet xaalis bu bëri bëri nga ñëw ne ko waaw damaa bëgg nga ñaanal ma waaye léegi waxal la ñaata laa lay jox kon kay léegi nekkatul ñaan normalement boo boo demoon nga ñaanlu nga fay deux cent mille trois cent mille cinq cent mille un million waa ji ñaanal la nga toog gisoo yëf yi noo war a def ah da ngaa war a ñëw ne ko xàmme nga ma maa fi ñëw nag ma ñaanal mais affaire bi kiiwul ah ñaata laa la joxoon oui voilà ah comme nee na ñaanal nga kay da nga koo fay mu ñaan moom boo bu la gis nga fii moo tax léegi ak ak biri ay ñaankat da ngay dégg kii nee na man amay ñaanlu man moom sama ñaan te nag xoolal ndeysaan Sénégal boo fi bëggee am xaalis boo ubbi woon léegi benn benn cabine rek léegi nga am xaalis parce que problème yi ngay wax boo ñëwee da nga naan ku bëgg a tukki maa ci gaaw ku bëgg a visa maa ci gaaw ah ku bëgg a jëkkër maa ci gaaw ku bëgg a liggéey maa ci gaaw ku bëgg a diplôme maa ci gaaw léegi nag gars yi wala ñeem foofu ku bëgg a gudd fan maa ci gaaw ku bëgg sa awra ngande maa ci gaaw waaw nga gis gars yi waay ku bëgg a siiw maa ci gaaw ñëpp nga gis gars yi daw ñëw ku nekk ñëw ah waaw man kay sama doom yi laa bëggoon ah ñu sëy ñu am jëkkër am naa ñeenti doom yu jigéen nga dëgg kële man kay sama doom bi jàng na ba pare am na bag waaw bu gërëm voilà léegi nag ñoom 300 personnes ngay jël par jour nga leen di inscrire ñuy jënd ticket ticket 10 000 ñaata la.
300.
léegi ba pare ticket bi rek la de waa ji fayagut nga ñëw mu ne la non man 100000 laay ñaanee nga wax mu ne non non non fi amul kii 100000 la ñuy ñaanee nga génn 100000 teg perte nga 100 10000 nga nga xam ne loo xam ne amoon nga ci sijaada bu bees tàq nga njàpp wala nga sangu nga nga dugg ci ruq nga kabar rukkoo sujjóot ñaan yàlla yëf yi rek la. 100000 10000 110000 nana yaxa 300 personnes yooyu ku nekk 100000 ñaata la ku nekk 100000 ñaata la loolu moo tax 3 jours nga gis waa ji jënd 4-4 5 jours mu jënd Hercules yaa diw moom moom fii gisoo gars yi ni ñu koy rangee da ngeen defee ne ñu koy rang yëpp seen aajo dafa faju koo ci gis dara man dem naa ba sonn gisuma dara kii waxul benn dëgg looy gisee dara te ñoo ñoo ci ëpp nag dañu leen moytandiku suñu digganteeg yàlla dara doxu fi suñu diggante ñun ak yàlla dara doxu fi amul rido bu ñu tëj du bunt bu ñu tëj xam ngeen lan moo fi jot lan moo fi nekk suñu digganteeg yàlla yaa rab yaa rab yaa rab mu ne la bayka yaa abdi yaana léegi nag boo xamul yàlla yàlla dafa la ne bul woo wala tadu wala lii du alquran min dunillaahi bul woo keneen ku dul yàlla xoolal lu mu ci teg mu ne maa laa yanfauka wala yadur koo xam ne du la jëriñ du la lor mënul tus yaa ngi moom yéen a yem day lekk léegi baa sa salte ne la xaar ma ma ñëw balaa mu lay jël audience deneen day dugg fi ba pare doo ko ñëw loolu soxla waaw naan nii dana xasoog saabu nag ba pare na loolu ko faala daa ko tóri daa waaw loolu soxla nga naan ko waa man kay temps yi dama am benn demande bu ma def damaa bëgg rek liggéey mu ne la cent mille la doo wax a da ngay génne joxe deux cent mille la ngay génne joxe trois cent mille la nga génne joxe un million la nga génne joxe un million kay nit mën na ci def taaba taaba un million mënoo cee liggéey ah trois cent personnes un million par jour ñaata la moo tax li gën a gaaw am xaalis tey moo nga nekk sëriñ sëriñ sa ngay ñaanalaat ci titi ti tak teggi man de bu ma nekkoon ñaankat li may woo par jour ñaan wallahi tekki na li may woo par jour ci Sénégal ak biti Sénégal par jour wallahi musuma xëy suba te lu ëpp vingt personnes woowuñu ma te ñëw ñaanal ñu man dama la kii dama la soxla kii kii seede la te dañuy ñëw comme ay robinet mais boo ñëwee ñu delloo la ci yàlla am na am na ñoo xam dañuy découragé waaw il faut ñu génne seen xel yi bokkaale il faut ñu xam ne sa diggante ak yàlla dara doxu fi yow la rek yow yaa am pesa sa bopp wallahi allazi la ilaha illa huwa boo rattaxalee sa diggante ak yàlla loo soxla di nga koy am waaye boo boo boo nekkee ku tilim ku salte nangam nangam di takk ay gàllaaj wóolu woo yàlla amoo imaan sa xol bi leer nekku ci nga am jafe-jafe yàlla nee na la bul woo ku dul man ba pare xoolal lu mu ci teg sax maa laa yan fa'uka du la jëriñ wala ya durruka du la lor kooku mënalu la dara soo ko xamul woon du tere da ngay continuer di dund ndax moom bi ngay judd moom da ko fekk sa programme mu dund ci moom la nekk booy dee est-ce que da koy yëg ah dañuy ñëw ne ko yow xam nga kooku doon ñëw fii mu ne kan ñu ne ko kooku bëri ñëw fii rek borom oto mu ne kan kan ci ku ñool ki ñu ah ñu ne dee na mu ne kañ la de ñu ne ko biig nga dégg mu ne xanaa dafa feebaroon kon kay xamul dara gars yi nañ leen jox suñu bopp yàlla gars yi nañ leen wóolu yàlla suñu xol yii nañ ci dugal yàlla nañ ci génne li ci nekk ñu dugal yàlla ñu essayé may naa leen ba samedi bii di ñëw ñun ñëpp nañ ko essayé sunu mbir yëpp day baax bi idnillahi tabaraka wa taala sunu borom nee na gis nga boo jëlee keneen ku dul yàlla nga koy woo fa in faalta boo ko defee fa innaka izan min azalimin da ngay bokk ci bokkaalekat yi da ngay bokk ci tooñkat yi lan la lan la Luqmaan waxoon doom ji inna sirka mu ngi nii fa in faalta fa innaka min azalimin min al mushrikin saa yoo bàyyee yàlla woo keneen bokk nga ci bokkaalekat yi bokk nga ci tooñkat yi ndax inna shirka la zulmun azim bokkaale tooñ gu rëy la nga woo keneen ku dul yàlla tooñ gu rëy la loolu mooy yow yàlla munoo dara kii moo mën te kooku yàlla la yaakaar kooku ngay wooyoo moom moom day woo yàlla a léegi du ma woo yàlla comme moom olof yi nee nañ li bar bëgg moom la mbëtt bëgg bul gëm bul gëm mukk am na ku la gën a jege yàlla déedéet wallahi lazim ku pare ci ñun dem ci yàlla day dem bunt bi tëjuwul waaye buñ parewul dem ci yàlla nag àdduna téye ñu ah bànneexi bakkan téye ñu àdduna téye ñu du ñu rëcc te dañoo war a dem ci yàlla tabaraka wa taala sunu borom nee na wa in yamsaska allahu bi durrin gis nga man yàlla su ma leen su ma la tegee lor fala kaashifa lahu illa hu kenn mënu koo dindi kudul man su ma la tegee lor kenn mënu ko dindi kudul man lii leerul léegi yàlla teg la lor ngay dem ci keneen mu naan la reyal xar reyal xar bu xonk xar bu xonk mu ne la waaw waaw xar bu xonk nga ne ko kooku man mënu ma koo am mu ne man de mun naa koo am dégg nga de loolu gars yi dóor maaftu dañ lay woo. waaw béy bu juddu dimanche. nga ne béy bu juddu fu ma koy gisee mu ne la munoo ko am foofu foo nekk. gën a ko maa ngi Dakar mu ne la yónnee ma ko fii yónnee ko wari wala orange money 300000. wala benn waaye mu ne mu ne mbax ne bii demal nga jox ko ilimaan boo xamante ne du naafiq du góor jigéen. noo koy xamee waa ji ñëw suñu kër yor cinquante mbaane ni imaam bu ma ne ko xaw ma imaam boobu fu mu nekk dama nga wóoy waaye di dama yógu yaakaar saay dañ leen di dofloo rek nga gàddu fii di wër di dof doflu fii seen heure bi waroon na laa fekk sa bureau ngay liggéey génn leen ci yii ngeen nax yooyu mooy sunu problème tey ñu ngi nii dañ lay génneloo sarax boo xam ne ay ay ay ay xar xar benn couleur bu weex taal nga ne waaw ñu ne bu juddu vendredi yow xar xar yi de dara da ngaa xam kañ la juddu ak buñ dëkk ak buñ jóge xanaa déggu leen yonent yàlla Moussa ca suratu Baqara saar bi lu tax ñu teg ko Baqara Ibn Abbas nee na ba leen yàlla ne rey leen benn nag rek ah suñu rëjaloon nag rek rey day dem waaye ñu ne ko uddoo lanaa rabbaka yubayyin lanaa uddoo lanaa rabbaka yubayyin lanaa uddoo lanaa ndax innal baqara tashaabaha alaynaa wa inna in foofu sax Ibn Abbas nee na bu ñu waxuloon insha allah keroog ñu al ko bu ñu reyoon benn nag rek day doy waaye comme dañoo al waaw wax ñu nu mu mel li waa ji doon wax keroog may ma ndox mu ne ndox bu sedd wala bu tàng soo waxee lii mu wax leneen nga wax lii mu wax leneen ba kañ noonu lañ def ak banu Israël ñun tamit loolu mooy sunu problème ndeysaan yàlla nee na bu ma leen tegee natt wa in yamsaska allahu bi durrin fala kashifa la illa hu wa in yuridka bi xayrin fala radda li fadli su ma la indilee xéewal kenn mënu ko arrêté allahu akbar su ma la indilee xéewal kenn mënu ko arrêté su ma la tegee lor kenn mënu koo téye yusibu bihi man yasha min ibadi yàlla nee na maa koy def ci sama jaam ñi ku ma neex rek ma indil la ku ma neex ma teg la ay jafe-jafe wa huwa moom yàlla alxafuur arrahim alxafuur mooy jéggale arrahim mooy yërëm jullit ñi àllaaxira rahmaanu dunia rahimul axira mbokk yi loolu mooy darsu tey ñoo ngi juggal jéggalu njuum tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu